dañ daan toog sax mu woo ma ñu waxtaan mu ni ma Cheikh lan nga xalaat ci nangam ak nangam ma ne ko may taaw loolu lu rafet la loolu loolu bul ci loolu bul ci sax xalaat def ko léegi léegi léegi. ba biñ mujjee ci weeru koor wi mën naa ni palaato yi ñu doon def yëpp yëpp yëpp bëri na ci yére yu ma daan solman moom mi ma daan yónni tissu yi dama daan jekki-jekki rek am ku ni ma kar ni ma moomee la jox lii ma jël yóbbu sama tailleur ñaw am na joo xam da daan toog naan ma dimbali ma ngir yàlla bul wax ko jox sansal rek mais damay toog bu yàgg du ma ko mën parce que tamit ay doom gor lañu te ku la defal lu baax danga koy wax ma toogee rek ma ne lii ma sañse kaw ba suuf moomi la su ko defee mu message ma yaa ngi may tooñ de ma ne ko taaw da nga baax man taaw rek laa ko daan wax dañ daan toog jékki-jékki ma ne ko waa taaw léegi eh, jox nga ma yére te ma wax naa ko ci télé bi am na ñoo xam ne peut-être mën nañ ko gisee neneen jox leen mu ne ma kan ak kan ma def liste yónnee ko kenn ku ci nekk mu yónnee la day jékki-jékki ne ma jox naa diw ak diw ak diw ma ne ko alhamdulilah donc lu ma seede la beneen bi ci tege mu jege woon ma tamit jege suma njaboot lool lool lool lool lool sama soxna mën naa ni anniversaire yu bu sama anniversaire jabar jege see rek daf may woo téléphone ni eh, suñu jabar ji anniversaire bi yëg naa ko de looy pare ma ne ko non pare naa li may pare ba pare mënuma déedéet loo loo loo pare maa ne ko waa dinaa la ko wax damay jékki-jékki rek mu woo ma ni ma demal ci Adja Thiam bijouterie la solution madame Sarr faw ñu takkal ko or ndax dafa nekk jigéen ju baax ju jàmbaar du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon damay wàcc rek dem ci Adja Thiam jël fa or yóbbul madame Sarr ni ko moomee la ko jox jaarale ko ci man du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon ci ay taraanga yoo xam ni séq nañ ko ci lu baree bëri bëri beneen bi ci tege sama soxna ci li muy liggéey muy cosmétique bëri na ay cliente yoo xam ne sama soxna yor na ko moom moo leen boole ak moom kon pour wan leen ni ni mu doon jokk ak man noonu la doon jokk ak sama soxna ku baax ku gore ku yiw ku xam àq euh, beneen bi ci tegee mooy que ne wàllu sponsoring su ma ñëwee dama naan ko taaw am naa sponsor nangam sponsor bi kat ki koy ki ko moom sama xarit la daf maa jege lool léegi dama bëggoon ñu xool nan lañ koy jàppalee pour mu mën a ñëw bokk ci émission bi mu ne ma léegi laaj ko ñaata la am imagine loolu laaj ko ñaata la am kooku bu nee ma lii la am mu ne ma indil indil nan liggéey pour wan leen ni ni mu ñu yombalee woon liggéey bi nit ñu doon doolelee nit ñu doon janee ni ñu doon kattanalee te dara du ko rëcc nag lu ñu ne ci émission dina woote di participer def la nii lii baax na lii baax na boo paree boo liggéey liggéey bu rafet mooy njëkk jël téléphone am woo la ni la félicitation tu as fait un excellent boulot ñu doon ànd ak moom ànd man ñu doon ànd ak moom àndu nawle tey mën naa ni ci ñi moom yi kenn ku ci nekk bu waxee da nga naan yow ndekk yow yaa jegewoon yaa gënoon jege moomi ndawalu guddi la ndawalu guddi da ngay ne yow boo dajee rek da ngay yaakaar ni ndawal li yëpp ci yow la nekk mais loolu mën naa ko seedi ci moom keroog bi yàlla dogalee ma déposer sama lettre de démission mooma njëkk woo mais lu ko fi jar yëg naa lépp gis naa lépp lépp di xew fi la ma fekk lu ko fi jar ma ne ko bàyyil noonu rek taaw mu ne bëgg ñu waxtaan ñu waxtaan maa ngi moom waxtaan waxtaan waxtaan ma bàyyi kam wax ba pare ma ne ma wax sama xalaat mu ne ma d'accord naa xëy na dafa bees mais demal nga dal boo demee nga dal nga waxtaan ak sa xel di xam bu baax li ma la wax mu ne ma Cheikh D-Media nekkatoo fi employé D-Media tey jii ci kilifa yi nga bokk ci ñuy dogal ngay bokk ci ñuy dindi ngay bokk ci ñuy nas ngay bokk ci ñuy not ci ngay bokk te ci nga bokk bu jaadoo sax dama naan la actionnaire nga ci D-Media te yaa ko moom soo wanee ginnaaw sa kër wan nga sa wan nga sa wan nga sa kër ginnaaw boo toogee toog nga ci sa kër ma ne ko ma expliqué ma ne ko nag mbir day tollu foo xam ni léeg-léeg dem mooy gàllaaj bi parce que bu dem amul rek mën na am yeneen ak yeneen yu am yoo xam ne après day ñaawal sax ànd ba te du ko jar mu ne ma demal ak sa xel nga waxtaan ak sa xel dinañ waxtaanaat pour vous dire que ne ni muy toppee nit ak ni muy bàyyi xel nit te pourtant am na yeneen yu ne ci kawam yu ko ëppoon solo lool sax yu ko ëppaloon solo lool sama jëmm ji pour wan na ni nit ki bu la soxalee da koy topp mën naa ni ba sama préavis di waaj a jeex mu waat ma ni ma yaa ngi jëm ci sa préavis mi ngi waaj a jeex dama bëggoon ñu waxtaan ni ma Cheikh Bougane sa mag la man mii di soxnaam mën naa seede fi mu la teg man mii di soxnaam mën naa la seedeel nim la fonkee man mii di soxnaam mën naa la seedeel nim la bëggee seytaane moo ñëw seytaane bu duggee rek dugg na mais delloo si sa xel wool sa mag ni ma wool sa mag wool bugaan wool bugaan kër gi sa kër la nga ñëw ngeen toog ci kër gi yéen ñaar bu dem sax bureau ñëwal ci kër gi ngeen toog yéen ñaar yàlla rek ñetteel leen su yàlla dogalee sa wër sag des na des médias nga continuer liggéey su yàlla dogalee sa wërsëg desul des médias nga dem wuti leneen waaye su boobaa du tee kóllëre gi dafay continuer pour wan na ni jigéen ju baax pour dama maanaam dama leen bëgg woon foofu ni jigéen ju baax ñii la war a mel bu sa njaboot walla leen loo xam ne laal na ci sa njaboot bu dara amee jógal di ca di ca waslu di ca jéem di ca jéem di ca jéem ba ba ngay am li nga bëgg mbaa nga tële ko pour vous dire que ne musul topp musul toog musul toog waxtu wala semaine wala mois bu ñu déggantewul ba bi may ñëw immédiat woo na ma félicité na ma ñaanal na ma encouragé na ma pour vous dire que ne jigéen ju baax nii lay mel jigéen ju baax nii la war a mel mooy topp sa boroom kër ci lépp lu mu nekk wala lépp luy rafetal nga dox ci moom yi de li ma la mën a seddal mooy lépp lu daan rafetal ma nga ca lépp lu daan rafetal ma nga ca lépp loo xam ne da day xajamal bokk ca lii de ay kàddu la yoo xam ne yi ma bëggoon seede ci moom la ci sama diggante ak moom ak cofeel gi doxoon sama diggante ak moom ak mbëggeel gi doxoon sama diggante ak moom en tant que frère ak sœur loolu mën naa ko seede ci moom te nag bis la boo xam ne bis bu diis la ci képp ku ko xam une dame de valeur ñu ngeeg sunu mag alaji Sall Bigué alaji ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la jaale sa mbokk di la jaale sa rakk di la jaale sa xarit salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa alaaj Cheikh Sarr maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la ndokkeel di nuyu auditeur ak auditrice yi rajo yëpp di nuyu réew mi yëpp di leen ndokkeel di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla sunu borom moo jël tey benn jaamam bu ko boo xam ne moo ko wàccoon ci kaw suuf muy kan moomi sekk ñu gën ko xam ci moomi dani li waral moomi dani ji mooy bërëm këram di buggaan gay dani <laughs> ndax dàkkantal la boo xam ni bi muy judd ban koy ngénte mhm. tuddewuñu ko ko woon waaye bi mu demee ba majeur ba yàlla may ko boroom kër ñu jël turu boroom këram ak santam yokk ko ci turam mhm. muy doomi Thione Seck ak ki nga xam moom mooy Fatou Kiné juuf mhm. Cheikh maa la koy jaal bu baax nga def témoignage bu am solo témoignage bu daw yaram li ma nekk ci yoon bi yëpp ci oto bi yëpp maa ngi lay déglu liñ ñaan nit ku nekk li nga dund ak nit ki rek nga mën a xam mais ci biir wax wax nga wax bu am solo mooy ku ci nekk tey boo